xibaar yu wér ca tàng tàng ba di jot suñuy vidéo jaajëfal nañu leen ci ànd bi ak Buzz 221 HD ni ñu koy defee saa su rek di leen indil ay xibaar lii di mauvaise nouvelle ci kii nga xam ne moom di Barthélémy Dias teg ci itam di maire bu Ndakaaru waaye itam di GG foofe nga xam ne moom moo di ci pencum ndawi réew moom Bonjour ñu ci ay ministre de la justice dal dinay qui ci assemblée nationale ñu Kinga Hamne, nga di Diaz la waral nak du condamnation ba nga amon noko, amoon na ko ca dossier kii nga di mois mu mel na condamnation dal dinay gina ginnaaw bi kii di Barthélemy Dias jël na ko yóbbu ko fa nga xam ne moom moo di ca Cour suprême dafa daal di dëggal daan boobu nga xam ne tegoon nañ ko ci kawam digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Ndiaga Diouf waaye itam alamaanoon ko ci lu toll ñaar fukki million ak juróom maanaam vingt cinq millions yoo xam ne daf ko waroon a yëkkati jox ko njabootu Ndiaga Diouf kon nag jamono ji ñuy àddu ngeen di teelu ministre de la justice Ousmane Diagne mi ngi sàkku ci pencum ndawi réew ma ci quinzième législative bi nga xam ni ni ki bërki démb la ñu ko installé mi ngi sàkku ñu raje kii nga xam ne moom moo di Barthélemy Dias di maire bu Ndakaaru waaye itam doon siège foofe nga xam ne moom di ca pencum ndaw réew ma nekkoon tête de liste bu coalition bii di ànd sàmm sa kàddu kon nag jamono ji mën nañoo jàpp ne kii nga xam ne moom moo di Barthélemy Dias ñàkk na post député waaye itam ka cay am sens du kenn ku dul nga xam ne moom moo di Pape Djibril Fall wa ilaa bu fekkee kii nga xam ne moom moo di euh, Déthié Fall dëggal na ab démission am ca coalition bi nga xam ne nag moom moo di ànd sàmm sa kàddu kii nga xam ne moom moo di Bart euh, Pape Djibril Fall mooy remplacer ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias ca pencum ndawi réew ma kon nag jamono ji Ousmane Diagne di ministre de la justice bu Sénégal ma ngay sàkku ñu raje kii nga xam ne moom moo di Euh, Barthélemy Dias ci pencum ndaw yi réew ma ndax jàpp na ne amu fa place ndax koo xam ne dañu laa ne ci li nga xam ne moom moom moo di wàllum crime warato jiite benn bànqaas ci bànqaas yi réew mii di réewum Sénégal rawatina aju ci li nga xam ne moom moo di gouvernement bi kon nag Barthélemy Dias fii ak fan dana daal di ñàkk li nga xam ne moom moo di euh, poste député bu fekkee assemblée nationale wuyu nañu ki nga xam ne nag moom moo di ministre de la justice di Ousmane Diagne